nasip Buraya da kaynar iken aradığı bıgımı kip Hamallik gel, is een dog. Die job ligt in de Tak is mijn bier onk. Wie mijn kus niet daar van ik toon. Gol wie naast je, joy. Dik ik kat je, ik doe je toy. Naga dan meer tel, vest sam gol. Mijn jelle zo'n badje, vet bij toy. Ja, gaat ze niet mooi, jelly ze de. Mensen mij down, om mij you got again. Gaar om she kennen een ler, nu, aan mijn loemoe te

poulet hit c'est cadeau de la somme à sommet Mais je m'en really go try, nigga moi sous mon guise Y'a comme ma guise ma hype, comme moi sous mon rosé Boulet d'un million de gain, un jour me bug ma kill Avant l'école du jan, ramène un rad qu'on en vit Mais je m'en really go try, nigga moi sous mon guise Y'a comme ma guise ma hype, comme moi sous mon rosé Boulet d'un million de gain, un jour me bug ma kill Hey, don't be live music. i My man Shida. Har kanam. Dila may care, yeah. Budu yaw sa nawle. Waxu ni day dal sa ko lijante. Fa sa kanam xar ko am jom. Xal sa yon pour am freedom. Bu la ngula bëgg utal ay non. Ken bu ken bop sa bop, yeah. Dem suñu mami dañu doon jaante si bab tuuy. Su bay gis xool ko ci nit yi dañuy sol masque sans coronavirus ko si ma di yërëm paaka puut la la jam ko si ma di gërëm mu foog ne yaay jaam léegi maa ngi naaw kuy kër samay laaf amatuma temps pour temps bi nga am néega nekku millionnaire nekkul si yooy waa nekkul si xel si jëfin bi la liwee may du bëri ay wax ne ci sa bopp sóoraale ëllëg ku taade duñ la mës a gëm yee

j'adore ce morceau, il se nomme tout simplement Harkanam, euh, signé by Shedan Doben Live Music et bien sûr en exclusivité euh, sur la 102.3, m'amène Rimka Ndoke. Euh, Rimka from Badlow City, Rimka Kinpikon représente, nous en exclusivité. Let's go, DJ Bar. bees ndokkee Sumay tàng su may génn sama sans lees boy du ma saf na mala la gën a forox ay bar di nga yàgg investissement yi te doo encaissé booy mani kees ñi nga xamul ngay selfi seen son bàyyi boy yaa ngi nar gàddu fala boobi represent bi ni mare MC ak ay kulo rokin woote aga mani toro fistin sa pano dono pubul fis comme miskin amul lu sul dañ koy sulli ni bukki loo fi wanoon boy fis ni ko ke yam nga kinaa boo xamul foo wati wàcce ji boobu yenul dis boy fis a tokk ji oh shit my ngi I ay hit bonu toppee di nga gis ay taatu si dunu undul taluñu ay papa si bàyyi naa la yàlla tol fu ngi oh, koy waxandi maa sam bopp di fi teg ko góob si ñëw ma label maa ngi joba sama bopp di changé ay flow ba gaay di ma big up da nga siw te sa waxoñ xamuñu la boy fis koo yam li ngay def maa ni que booy du rap di sukki di saaf ginaar yi di sap di nga sawi sa tëddi dañ leen gën a tëre sa dee day bett comme néeru bi bu tëddi comme suñu férié da gaay dañuy am ci bi nelawatuñu guddi ndax ñoo ngi ci jobe amuñ sa do ko def ci ko ëpp ndax mu suma xaddi li ma fi job gaay dinañ ko nettal dama yéeme ñëpp jombi si booy bi dañ ciy béggee keneen xolam di ci metti fula bi comme jiit ndax dina la fitti du ma traîné mer moo ma yónni baalu ma sama bopp a capo de capo joo bi lenn naan ndax ni may rabe booy doo ko gis feneen doo bëgg mel ni man waaye du benn bu doy lekk fis ma doole la peneen doo nekk si jàmm ni ku dëkk yemeen soxla ma seen ndimbal maa ko jobba ak si du ma nangu ku ma yàqal oh là là oh là là suuna yu bëri ni positif corona corona ngeen sonal ma nëgg tampi boo si meree ji gen wa lu ma ma négga gen gen seen xooje di si wis bekk maa ci yoon bi jàpp feegi di rendi yàgg naa la wax na booy bis di koy nekk di nga tëddi wax na ma la borom ndékki nangu li yàlla dogal kenn du la sonal ma négga sa xol du jeex ndax moo lay noppal ma firi ndax ñi booy fis ko tekki foo nekk maa nigga fi dal la teg jeexal yow mi ma mënul la ko joma sa tindu la ko xoromal duñ ko benn benn da la jo gorobal liñ kat di kormal dégg ma su normal ku bi la caab ñoo la waxoon boy fis du xalaat matal nen ko matal nen ko ku dubu mag leen king kong di represent Sandika represent maa beddoo dim kaa xanaa léegi ay xaal nga ñu ndara jox Ok, donc euh, Iba, si c'est bon, on va préparer notre week-end en beauté, bien sûr. On a une internationale, internationale artiste, Mungu Toudou, Mols. Mols, you ready? Yeah. We can start the show? Mm-hmm. Gambian represent, let's go, DJ Iba on the number one set. If you already know, Tal Rex Show, let's do it. yow su ma ci na xëy jàll tax ma jéggi géej bi ñëw xorom si gaal seen béré bandi def si kaane def si kaane faye faye sa gaal seen sa pañe ma wóor sa toogu du neex non fe maa ngi fi naxa du deñ bi rako du wér bu ma bind ba jant ba feeñ ana ba dama waay ku la fi teg lay alamaan ana waa away i am call fans biir Touch and chop, cop kill a man rap shoot, féetoo kill a kila Touch and chop, cop kill a man rap ee shoot, suuf kill a daan you never lame never back aim ñu ngi jub si call me the number one desuma game bëgguma sa gain ñu ngi jub si kaw ni nga toñu you yu bari faster than a Ferrari I'm bés nga amee du yàgga sa prono fan te xoole ma numéro uno du dunda di xulo buy ni nga do understand eh bul tiit bul ragal ndax amatoo a lay tanal ndax xam nga ne ko liw du sangoo canal masala bi bu ma neex lay dawal fekk si sob dawal sob leen comme dawal su ma koy la tar sawar xelam loo si sa sawar kawar booy anagay anagay anagay boo ñu fi jóg dis ma ne anagay anagay anagay fi jóg 너네 하나 guys go What's up up doch wir noch you what Basu tango fuck mu roti da Komm jobs in bit bit doch what taxi at man I'm the fish that's a big effect I'm a boomer son you the joke like this No na joke like na like this No you it dead then we rest in peace Boy my vida da mucho taxi Baby be more tag ala make it up pussy talk es que dinga tu cry We talk on your fake we talk on mo se Yeah yeah But represent. Everywhere my back. Yo. I don't wanna do it, I don't wanna beg a nigga like a kick, so but my pussy. Messing with the boys, I fuck with mistake. I fool melody, the more so fuck his day. I'm a little bit of cool, a little bit of hardcore, hardcore, that money confiscate. M O S Z to the E to the T O P, man, can not do my day. Well, this is a business, and it's a matter of daily belly, but it is necessary. on a gay, on a gay, on a gay, on a gay, on a gay, on a gay, on a gay, on a gay. Let me, This is my homeboy. Mr. Moles, mungi nice, huh? Yeah, one huh? minute. You take out coach. Let's do it from Gambia to Fire. Dakar. Let's go. Kodo. on this one. bu bu ma xamul danga bu ma xam na la ne mën samay génne boo xamutoon am na o sabaru noonu the water to make it a stay in the galaxy bu dema bu ele ka dola dola dola dola e bale si dara si e bàyyi ma fi dara nigga bàyyi ma fi dara te ñëpp nga dama si bàyyi ma fi dara nigga bàyyi ma fi dara te ñëpp nga dama tiis ba xare jéem a xare door te suma tur yàlla kilo maa ngi sant yàlla xana yow money money yo ma may noonu yaa ngi bëri faral ma sàppuma ay kodo wala xaalis bëri dinero amuñu jënd jënd jiro amuñu wala bëri money jino jino jino ay kodo wala xaalis bëri dinero amuñu jënd jënd jiro amuñu bëri money you know you know you know ay kaset kaset wala foog ma jëli jënd aset aset wala million suma pocket wala bi ma du taxaw بدرت ندوس ومدرب بدرت نقص ومدرب وفوق ما فيك بنايم Grab me while you're at you. Don't put it fan and the bed he got you. No order, no order, no order. What that is on you, you ripped up your dad. Your boss, a man is an animal. You see, there is a heavy loss and I find you. Grabs you, be like a tattoo. Do this, I get him a rat. We could do it, and it's funny, this money thing, you know you This is my homeboy Mons Mons je cool hein. Mon cool 100 hein. you good yeah you def Ben past the pub and we come back All no problem. Let's go, Tarek Show. Let's do it, DJ Bob. C'est ça. Le Tarek Show. Et c'est exclusivement sur Vibe Radio. Let's go. Vibe Radio. Vibe Radio. décembre un na de Obala Jouet fas yéene ànd ak ñun comme ni mu koy défé at bu nek ay cadeau ak jouer. yu mucc ayib ci ay de grandes marques à des prix waouh la référence pour ces fêtes de Noël et de fin d'année c'est assuré avec l'unique Obala jouer. cette année sera encore plus belle des surprises affolantes vous attendent au 69 rue Raffnel Angle ouvert tous les jours de décembre week-end comme jour férié jusqu'à 20h avec ses deux parquets joignable au 33 823 17 79 79 33 821 45 81. Donc, tu ci bëgg ce bégal nous doom faire gaaw fekk si ñu Obala joué doo ko rëccu est Obala Père Noël. décembre jot na de Obala joué fas yéene ànd ak ñun comme ni mu koy defee at bu nekk ay cadeau ak i joué yu mucc ayib ci ay njëg yu amul fenn de grandes marques à des prix waouh la référence pour ces fêtes de Noël et de fin d'année c'est assuré avec l'unique à joué cette année sera encore plus belle des surprises affolantes vous attendre au 69 rue Raffnel Angleton, ouvert tous les jours de décembre, week-end comme jour férié, jusqu'à 20h avec ses deux parquets. Joignable au 33 823 19 79 33 821 45 81. kon ku ci bëgg Noël. Merci, on est toujours en direct sur la 102.3 Vibration, the number one set if you already know. Uh, from Gambia to Dakar, from Banjul to Vibe Radio, this is my homeboy Mode. Yo, yo, yo, yo, what's up? Uh huh. Everyone, what's uh, up, Senegal? Yeah. Yo, I'm giving out shout out to all my fans out there, uh -huh. sending love uh -huh. and appreciation, man. Okay. Mais Mose, all of no Gambia, you all of no. Ah. <laughs> Like da nga bëgg nga présenté wu en showboy Mols everyone Mols la. Uh-huh. small of, small Olof yi one. okay Mols that's your real name. yeah huh? no no no Mola means my real name. okay why you choose Mols. yeah Mols. what does mean Mols at first. Mos turbo jagala ya dal, okay. ma jam uns ma bena broda, mo maran oye mos way mhm. back, ma genona ne kan du. Okay. Ja, daf maran oye turbo no ne kon sma hariti tami do ne ma ko oye. D'accord. Fa ne kon luma bañ na ko afta mo mujje ko like. Okay, okay. Yeah. Legi donc ko mujje bëgg ko. Yeah, yeah. Okay, legi amna ben euh, ben euh, question bu simple mama, moy pourquoi pourquoi nga ñew Dakar? Da ngay préparer ben événement wala da def tout se tourne mediatik? Lan mo la andi Dakar exactement? Dakar kom damati ye like bena place la rek senegal be ya okay. so dey feel home suma fini ke si bopa manastan Mm -hmm. so liggéey bi dama ko def emale gambia rek dama ñëw fi because sénégal bi yàlla understand nga ñaari dëkk la laa nekk di liggéeyal d'accord accord yeah exactly loolu dama fi gis moos kon da ngay yag Dakar yeah yeah yeah like du yàgga noonu dal. maybe mm. one weeks rek one weeks yeah yeah ben one weeks mhm. Like ban projet la ñuy xaar ci yow ah this time luy ñëw dafa over heavy sax ma ngi ah. drop suma project bi DTM recently yaagut nono. Okay. yeah mo ngi uh, digital platforms yi yëpp. do? DTM doing the most. doing the most DTM. yeah mu ngi ci plateforme yëpp audio ma. yeah everywhere everywhere am nañu ko check out. nono. noonu. pare shot bi nii. Mm-hmm. shot bi ku ko scan. yeah DTM shot bi ni yeah. okay. ma ne suma match man. doing the most. doing the most yeah. extended play. yeah. Okay, we got you we got you. so uh, DTM kañ la DTM DTM 30 September. 30 years September. Yeah. donc ça fait trois ans génne waatoo dara. la la la right now lan ngay waajal. maa ngi waajal gars yi lu bëri ma am beneen projet wala ma bëgg mu nekk surprise daal. mu nekk surprise waaye yaakaar léegi tey léegi tey ma joxaat gars yi leneen lu tànga. ok comment se passe euh, le hip hop en Gambie hip hop en Gambie nan la demee est-ce que comme Sénégal bi la wala that's different. Ah, nu ma la ko waxee rek man dëkk yëpp laa dee boole du ma dee xoolee Gambia. Sénégal fii la Gambia fii man yëpp laa dee boole understand nga. Mm-hmm. comme. time in like music scene before foofu feel like everything mu ngi work nice daal. mu ngi work mu ngi work cool bu baax ñaari dëkk yëpp ñu ngi liggéey. ñu ngi liggéey. yeah big time. léegi yaa ngi organiser foofu ay concert temps en temps ou bien. yeah soon man. soon hopefully next year incha allahu ah na jox gars benn bu heavy. kon yow bokk nga ci new generation bu Gambian hip hop artist. ah yeah old school nga. gars yi boole gars yi ma fa boole. gars yi. bu kaa gars yi fa boole. ah. ci nga man mom yeah yeah mu naa ne ci laa bokk wa gaa yaam gaa yaam si gën a man teguma fa suma bopp sax gaa fa teg ok en tout cas en tout cas ñun luñ jot dégg ni nice hein, hein. t'es t'es très bon en plus on voit même si ce texte tantôt da ngay rap en anglais tantôt en wolof et tout et ça c'est très bien loolu that's cool ko day jaase rek bi bii lan nga xalat ci Molz suñu xaritu Gambie. <laughs> nice ah nice nice li ma jot a déglu nice na vraiment def na ci énergie def na job. donc boo ko déglu da ngay xam ne mu ngi ci mu ngi ci monde musique bi. te mu ngi eh, mu ngi liggéey quoi. Ah. vraiment je lui souhaite un bon vent. di ko ñaanal carrière bu mucc ayib. li eh, ma déglu nii moment. Ah. war na mën a tasaare fépp ci àddina pas Sénégal kese quoi. ok félicitations à lui. donc dañuy continuer show bi. dañuy jaar si yow. Euh. ama yow deux affaires. Euh. ñu ñëwaat ci moom. Euh. ma ñëwaat ci yow. ma jox leen benn bit. ngeen def Cypher def lu that's oh, cool that's cool let's do it <laughs> DJ Iba Cissé let's go. BWPOG. let's go. Mons, you can do the shout, the shout. Yeah. You can do the shout, yeah. Silo, silo, silo, ñaata yoon laa fëgg sa bunt muy gën a tar ñaata yoon laa déposé stage nga ne ma xaar ñaata yoon laa fa ñëw ak maa dis la soxla nga ne waaw ñaata yoon nga ma gis man kese ma toog di jooy bu ndox tuuroo fépp am mbaq rek fay des wax nañ la lu ne ci man teewul tey nga gën a gëm bañaloo ma dara sa xol sa xaalis ak sa jëmm lekkati kese dundalul kuyu bébé xol du óom topp ma rek ne ma ñu ànd te xamoo sax fi ma jëm yoon bee gudd te yàgg ñu gëm ne dañuy àgg maa tiim ma rek ne ma paa mënatul léegi looy xaar sa morom yi takk nañ jabar léegi wutil waar ñàkk fayda ci góor góomu robaale lay doon mbaa yaa ngi xalaat ni bis di nga mës a am ay doom question yu bëri ci sama bopp te amul amul lii du lu kere bind ba loxo bu nekk am ci éponge gisante ci pantere fande doo xalaat reer su ma lay wax lu ma jaar ba yegg si fii dalay def ree des fois ma mer yéeg bëgg a def leneen su ma xalaatee ñi ñàkk wér ak ñi yàlla xañ leneen ma dolli sant ci ngelaw gu may noyyeeg wér gu yaram ñu ne ma borom karaw gu ñuul walay ñàkkul dara pourtant maa ngi bejjaaw ba léegi amaguma dara fii la ñu tàngoor ak seddaay bi fekk ñu koy ñàkkante musuñu am ay yaafus musuñu am télé magique fii la ñu toog di ko xaar ba yàlla ñëw na tey kon bu yoon bi jeexul du jeex mënd mi fekk en ah. tas famille étage ardoise ak ah. police di fekk ñu yóbbu jeel bëri ñàkkee seen doom bare ñi Ibrahima màcc naxee le 31 juillet I like it, I like it. <laughs> Yeah, that's all I Thanks.

WBOG on Assen. On I like this one. <laughs> Thanks. Hey, <laughs> eh, what you boy got on? What you boy got on? What not man? I want man? What man? lekk sa rappeur ceeb bu jaga defa bu ma gàtt coow li gën a bëri waxal sa bi mën na dem tëri gën a fres na juddoo ci frigo saa ni jant bi nga ne ma gisoo jàpp sa ci may na si big fall ñoom ñëpp seen tëji di catti fall gintee bi ceree ndawal waxal ma ama maa koy siim ñoom ñëpp laa bekk ñu góor a góor duñu face à face duñu koor a koor dañ ma xaari rek ma fële noor seen album meñul dafa bekk koor may noq sa nga on the top, let's go. let's do it one more time. Be happy. ji booy nga waa waxoon naa la ko mais. waxoon naa la ko mais. bi fi naba lekk sa rappeur ni ceeb bu jaga defal gu ma li gën a bëri waxal sa rappeur bi mën na dem tëri gën a fresh na ko juddoo ci frigo saa ni jant bi nga nem jàpp sa rappeur ci may na su bin fall ñoom ñëpp sa dëj di jàpp fall ki tee bi jëree ndawal waxal ma ama maa mooy siin ñoom ñëpp la bett ni góor a góor duñu face à face duñu corps à corps dañ ma xaari sul rek ba fële ku ko mën nii nga koy defee bëri pexe ni booy junee gen yi yëpp koy lëmbee du ñu daje gu deg ba fokk yu maa ngeeg la mu dof damay napp may seen jof xamel oji musul xof da ngay ubbi rek ma rof pare ni ci koo tatoo war sa ndey booy ci biir takoo te nil ndekete yow ayo wasa yaay nga da xelaw ayo foog tey ngeen dee talaati ngeen a talaata laay rey ak juma ci ngoon laa lay suul foog e eh, man ngay cek e eh, yow man ngay cek e eh, man ngay xool e yow man ngay sii e man ngay ngay look hey, yo, man ngay xool Hey man check Hey yo, man check ma fekk maa ngi feeling baaj ay feeling baaj my get feeling baaj ay feeling feeling baaj my get feeling bright. feeling dama gëm sama bopp dama fan sama bopp am self-made non dama nopp sama bopp pour talent bu soxor matt leen di mel ni dëmm dégagé falaam muy leer si say bët léegi mën nga gëmm sa su man ba ca sàngo maar jantamay nit du ay faat xaalis bu baree yokku ta jox ma sa air ni ñu ñëw fa non non duñu noonoo maag yow non mënuñu noonoo demal fële nga toog bu ñu fontaw bañ bañ bëgg ni maa koy yëngal wax jëmbi du Ouzin Pawlish da nga woyof pour def lu dis joxe sa boo xamee nga bandi bi defoo ci gel bi no waxal sa rapport bi mu dem toog di tark ndaa bi yegg si na di même boo doon naw sax doo ñu dab fi doo fi supp booy suñu ndab e gis maak ñoom gis maak e eh, eh, man ngay cek e yow man ngay cek e man ngay xool e yow man ngay sii e man man ngay xool e man ngay cek e yow man ngay cek ma fokka maa ngay feeling and feeling back, man get feeling back, and feeling back, man get feeling back, and feeling back, man get feeling back, man get feeling back. وخدنا لك المان Tout simplement BWOG. Gagne respect. Eu lu takk se ginnaaw di fecc jalgati. <laughs> ok Oji ñu bàyyi la nga présenté wu. waaw Starboy la Oji Boy Gero bi WB. Oji ko wax sax. ok BWB la from ginnaaw xale. ok. ah <laughs> bi artiste rappeur maa ngi nii ah. comme d'habitude. nekk ci ragal du jéggi raay de. ragal du jéggi raay ay waay bul ñu woo ci ay. Ah. bakkan bi lañ la jaay ay waay tey de dig ñu fay. Ah. adresse bi ginnaaw raay le point com jeex na tàkk. ñooy këf sa bren di naan sa deret ñun ñoo la gën a pànk. moo dëkk ak fel ak mbóot ak matt ginax yaa ngi bajo. ku nekk ak say sóol ak sa aajo na muy fajo espaket ndambeeg maynes boo yu bëri fa la ñuy jaayoo nee na bon bi It is homeboy. donc ça euh, le premier son Dis, dis le premier son, le premier son. Quel mot devrait refrain C'est le premier son euh, Il s'appelle King Sankum Sissoko. Uh-huh. artiste international basé Suisse. Suisse là. Moi, moom laa defal featuring une. ban làkk lay euh, Mandeng lay hein? C'est, Mandeng c'est c'est c'est très beau. Mais un manque de salut de passage. son vie, son vie, ça me parle tu parles de quoi. De naa wax nga fi Macky <laughs> wax nga fi Mënd wax nga fi t'as dit pas mal de choses est-ce que tu peux nous expliquer premier son I ah. like I do like it. ok thanks. ok premier son bi comme comme nu mu tudd rek jaar jaar la quoi tu vois. ok sa jaar jaar yow waaw waaw di ku nekk am nga vécu quoi. donc man sama jaar jaar du ma ko souvent di ko euh, natte. ci sama bopp tu vois du ma ko natte ci sama bopp dama koy natt ci. ci doomu aadama yi quoi. tu vois mhm. donc ni may ni may dundee rek ñoom noonu la ñuy dundee chaque jour. parce que après tout si sénégalais. Mhm. fii laa nekk ci dëkk bi donc su may buuxante ci car rapide ñu ngi buuxante ci car rapide. Mhm. li ñu leen di wax seen kër yi lañ may wax sama kër yi donc ñoo bokk même mode de vie. donc ça veut dire que moo tax sound bi boo ko tegee rek ku nekk day yaakaar ni moom histoire am ngay wax quoi. voilà c'est ça. ok. Moz lan nga xalaat ci kii. Sai, that's more by impress big time. <laughs> Oh no, that's not good. you, can, you, can, you can speak English. Yeah, okay. Stala Buba, song am first song play uh-huh. over like over deep song bu over sound like thanks yeah. Okay. thank you donc euh, vient de dire Maman, le son, tu l'écoutes, tu l'impression que, man, bon, à un donné, qui m'a dit, hé, hé, suis, j'ai l'impression que, bon, man ngay wax les tout tu as un niveau d'écriture très très très très très très très élevé et ça c'est bien ça se voit aussi. ça se kenn tàccuwaat ngeen ko yéen waa ginnaaw raay maa ngi yéen la ba kenn tàcc si ngeen ñëw def jalgati ba pare duñ sa di jalgati donc décembre décembre bi la ñuy xaraat décembre la ñuy xaar ci yow donc euh, d'abord wax léni projet bi disponible na sur toutes les plateformes. ban projet waxoon naa la ko. waxoon naa nga teg nii. donc waxon ah, waxoon naa la ko mais. waxoon naa la ko waaw tout projet bi. donc disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. nako gaay nako gaay yi na yi dem jëli xam nga partout. dem télécharger ko streamer ko déglu ko xama ah. xamné ah. bon projet bi mu ngi ci marché bi et c'est disponible ku ne ku ko soxla rek war nga ko mën am quoi. donc wa à décembre bi nag quoi qu'on puisse dire bon puisque projet bu mu génnee yàggul. Eh, en plus même ci ay dates bari damay génn Dakar da ngay jouer du partout tu vois. Mhm. on a préféré qu'on ne promo projet bi. après une soog a ñëw événement quoi. ok bu dul à part loolu am na sama benn boy bi tëgg la 30 incha allah. Mhm. benn showcase ginnaaw xay bis paakaana. Mhm. waaw di woo ñëpp dinaa fa nekk encore une fois. D'accord. accord mu nekk mu nekk euh, le 30. waaw le 30 la koy tëgg moom. ok d'accord. accord est ce que mën nga ñu wax sa jaar jaar ci hip hop. suma jaar jaar waaw. ah lu ma ko naree nettali fii moom <laughs> naree fanaan waaw bu ndaw waaw ah, ma cosaan leen lu ndaw si loolu rek cosaan kay cosaan lu ndaw ah, métti woon daal mm-hmm. doorindi moom mm-hmm. moo mel noonu léegi-léeg si loo munti nekk am na nu moo métti da ngaa bëgg a give up nga bëgg a ah. bàyyi si boppam understand nga discourage si sa boppa mm-hmm. yee yooyu noonu yëpp jaar na si understand waaw ba alhamdulilah léegi daal D'accord. Yeah, les moom um, everything cool. How was your bon when you start nan la demee it's like fi Senegal, pour nga nek fi rapper. just just example. Mm-hmm. that's easy we have so many studio. you can record mm-hmm. everywhere uh, uh, where you want. so le problème est que genre nga jugé ci underground ba nek ci upground ça peut te prendre plus de 10 ans comme mën le la jël en une ben son. mën nga tax nga ki. est-ce que c'est la même chose en Gambie. Eh, gambia dafa dafa dépensionné de liggéey rek si boppam man woon dama daan bindantu ni waaw musuma ko jëlee something serious ba ay 2020 mhm. yooyu noonu yes laa mi suma brother mhm. channelum Bola Gang mhm. yeah then ñu commencé dóor waar daal ba xam nga ting si tamit gom sa bopp la ak soo defee soo defee nga liggéey bu baax di nga feeñ 100 percent ok ban relationship nga am ant comme ñoom la Ace gars yooyu nga xam ni commencé nañ rab bu yàgg ah dama leen daan seetaan nag bu baax ok yeah but nekku ñëpp laa xamante ne daal. understand mhm. mooy loolu daal waaw ñoom yëpp defoon nañu great job man bu baax. right ñun tam ñu ngi fii nii pour mutali yooyu noonu yëpp. est ci mois de décembre bii nii da ngay organiser benn concert mu nekk Dakar ou bien est-ce am nga beneen événement bu bees bi waaj a boo xam ne jege na. ah non planuma loolu noonu time bi nag. Mhm. boo xam naa suun. am naa suma fans yi tamit ñu ngi bu ko jox ko jox bu Sénégal pour def fi concert Sénégal hopefully next year next year that's sure next year next year naa fi ñëw I will wait ko uh-huh. que internet bi bu est-ce que tu as eu faire, euh, est-ce que def ay collaboration avec des artistes sénégalais un rappeur sénégalais yeah, mos naa nekk si song man mhm. BMJ BMJ yeah BMJ def nañ dara ok yeah BMJ rek laa BMJ kase yeah ah. bon moo mu ngi ñëw man mi la lool yeah okay. Oji Estaba Oji yeah ça te dirait de faire featuring ak avec plaisir. Hein? suis d'accord avec ba ça, déjà avec vous. connexion même on comment comment. suis d'accord avec vous Je suis nan avec Vous collaborer comme ça au moins Je affaire. donc mon pour une semaine. donc c'est une occasion rêvée aussi vous avez pourquoi pas vu que international et tout. Why not organiser Gambi concert Je suis ok Oji vous Je ñëw. voilà euh, on stage ça vous C'est bon? Yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. 100%. So, then you just zijn laatste track. You dat show Let's laatste track. Okay, okay. You ready? DJ je Ibasi, c'est bon. On est toujours en direct sur la 102.3 Vibe Radio. My man Morzu from Vibe Radio to Banjo. Let's do it, hip hop. 102.3. Hey, yo, بخلو نو مكتب بيبي فوق من نص لغة سنكاب في يمر غوصي بوست جاي Holy moly what you bought بتفا تسي خاني جيمبو بوبر صح ما تك تك بوي منا دو مرتب دي دبلي نام سودو من كسا كوفي دوكسي كون بي لاي ريك نما نيمي جوب بدفسي جوم ألي ولا نلم كوفي تالي بروسا بوي سبور بدي فن مودو دارا كونسي جيم بي رابا يم بي جارا سيسا جوين بتوكو فيسا كارا فيما مبودي جوني مونسي أنا on بودي Hey, I'm a DJ, pull that up again, pull it, pull it Il est rapide, il est rapide, il est rapide ce gars. Une fois, deux fois, fois qu'il le faudra. DJ Iba, let's do it. Correct show. Hey, Let's go. Hey shows Beholder nummer kæppe Vi befolk mig når så lov Så kan vi hive råb Sin boss betjek Ole mule rød Til hvor vi der var det sig Herne hjem hvor popper Sammen med den boy Nu når du må klap Det der bliver nem Så du må kasse Kunne vi dog Så kun vi lage reg Når man hjemme job Bedæft til jom Alle alle Når du vil dale Bro så rød Fuck så bop på dag For når du der Kom så hjem Vi rapper hjem Vi tjera Sidst så hjem Vi tuk og face Johnny Mor Så alle on rule Dæft med kille kille Job så kom Vi alle mille mille Alt for slik Dæft med bitte bitte Jeg magte det Gennem så gejse Bitte bitte Bro just sit Sit og se Hvad skal det gøre Kisar kisar Bringe

base and teach you and you had in a billion pop pop your loose point DTM bag in this one nigga I'm confident the president the fee come da rap no can and good king the DTM be just as empty no matter si up you gonna up you need to see kill him kill him what you was in feet jump at the jail no matter can cheese and boy I'm palm no one on the lead si nan gose E se mwen ki sa ki sa bini Pwede dere pou bisa bisa blese My gang we yo we yo we lit Look at my team, boy, look at my chick Look at my mm, boy, look at my kick Look at my this, look at my that Look at this shit, we don't do this shit Suck my, suck my Little guy on maximum d'applaudissements, s'il vous plaît. Moi, did it, we did it. So, so, so, so, so, so, so, so, so, guys, guys, guys. Guys, li ngeen di wax yëpp dama koy Ok, so, uh, est-ce que mën a ma acapella su premier couplet bi? The first the first one. ba xoolal nu ma képp bi bi foog ma nosi lox seen kàpp yi ma rof si poche bi ceek holy moly xool ci bopp bi defati si kaane jimbo poobar sax ma teg e boy mënatuma trap di def ni ñoom sudu man kese ku fi toog si trombi def sa bopp day fa noodu dara kan si game bi ah! ñu yàq nga ne déggoo olof ya <laughs> I'm nga I'm nga nga sénégalais gambien gambien mhm. so pour non <laughs> <laughs> la Après, on revient en force. C'est Let's do it. On est toujours dans le direct show on the number one set. Let's go, DJ Iba. Yeah, yeah, yeah, Vibe Radio. Team Challenge. Le 17 décembre, 30 km de Dakar au Lac Rose, le long de la plage. Départ à la plage de Yamalai. Entreprise, association sportive, entre amis. Constituez-vous en équipe. Challengez-vous. Tu peut faire gagner toute son équipe. Il y aura des points d'eau tous les 5 km, des fruits, une collation, la sécurité et à l'arrivée, des lots intéressants à gagner. Le retour à Radiamalaï se fera dans des bus climatisés. Les inscriptions ont déjà démarré. 30 000 francs par personne. tooloo leen yéen xam entreprise ngeen. yéen xam association sportive ngeen. yéen a xam ay xarit ngeen. des équipe. Tout ko nu leen neex. ngeen daal di ñu daal dox. Rose. dëgg-dëgg xam ni Ndakaaru mel. xam ngeen ni foofu dañ ko ba mu rafet. ngeen gis ko dund ko. numéro WhatsApp 78 470 62 62. moi je ferai ce challenge là. Avatar la voix de l'eau. Le 14 décembre, retournez sur Pandora. Notre famille est ici. C'est ici que nous résistons. Découvrez le film Phénomène du réalisateur James Cameron. Nous devons protéger notre peuple. Finissons-en. Avatar, la voix de l'eau. Une expérience à vivre en 3D. Le 14 décembre au cinéma. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Vibe Radio. Little man on the track. Little man was a surprise. But you break it all out. Hey, yo, xam nga fi ma def yow kon bu dul dëgg wax ma ko te yow xam nga fi mu la def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow te yow xam nga fi mu la def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow te yow xam nga fi mu la def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow du yaa ma koy bàyyi loo ndax ba ñuy bëggante yow mi yëgul loo maak moom dong yow mi fekkewul loo noppi ci bilaay ndaxte baaxuloo li tax ma bëgg la man xaw ma ko li tax nga bëgg ma man xaw ma ko baby gëmal ni yàlla moo ñu boole te lu ñuy dund moo ñu ëpp doole baby ñoom nga bàyyi ma lañ ma yéene te xamuñu sax bi lay fi ma féete yaa ma tax di feey ci géeju mbëggee boo ma soree damay gaañu ci nameel yow xam nga fi mu la def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow xam nga fi mu la kon bu dul dëgg wax ma ko yow te xam nga la def kon bu dul dëgg wax ma ko sa weexaayu bët yee may daaneel ci sa xol bi laa jënd bàmmeel des wax la lu dul def fii ci xol bi bébé yow yaay seef te yow mbëggeel du jaay mais jabar am na prix xool kenn du ko jënd man andu may tere free ñaar ñu muñalante bul rafet dan la ko mooñaaleel mbëggeel lu dul bëtu mbëggeel du ko gis sama xol sama bët di la gis kuy xalam di ca jaayu man ma tax di alu, xam nga fim la làkk sori yaa ma tax di gaañu te yow xam nga fim la def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow yow xam nga fim la def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow te yow xam nga fi nga def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow te yow xam nga fi nga def yow kon bu dul dëgg wax ma ko yow sama xayu bëdee may daaneel ci sa xol bi laa jënd baam des fois ma wax la lu ma dul def fi ci xol bi bébé yow yaay seef te yow mbëggeel du jaay mais jabar am na prix xol kenn du ko jënd yaa bay tere firi ñaar ñu ànd ñooy muñalante bul ñàngal rafet dañ la ko mooñaaleel OG, OG, OG, OG, OG, OG, OG, OG, OG. Alek yo, OG. Kon wa gira ora sen bandi bandi bi yo tegen di wa imbegel. I love again. No, no, wait, wait. Ah, OG. OG finger tugu nan. Eh, ata, wait, wait. Eh. OG filo tugu, eh. Ne ragal du je gira. Ta lolo. Lolo. Metti metti ba metti. Naan ma falal la te. gerte gi ñu bëgg a def gerte gi ñu bëgg a def. non parce que yow ku la gis. pourquoi pourquoi chanson bi. xam nga fi mu la def ak kan ngay waxal sax. Non, <laughs> je suis un artiste. Ah, ouais, mais, <laughs> mais bon, je suis un artiste, du comme tout le monde, tu vois. Okay. Un droit à bug, comme tout le monde. Okay. Les parfois, tu vois. C'est une histoire vécue, donc, mm -hmm. les raconter, c'est une mhm. histoire vécue, donc après c'est trop facile quoi bokay def boo ma déggee sama flow ak sama bad nga xam duma woy kat mais bu dé ci xol lay jógee rek donc c'est facile pour nga woy ko mu dellu ci xol quoi ci xol lay dellu sax mais ndaysan hip hop ba ngeen nii de da ngay metti metti lu taxoon bébé comment tu vas <laughs> Mors daa mel di def yooyu mais Mors Mors gis nga am nu metti méttee sa def def def askan bi dafa métti na na na na mu ñëw deuxième bi naaj ñu benn troisième mu ne ne ne looba boy la looba boy la. yow yow léegi loo def loob. non man ñun gangster la ñu si kaw. <laughs> Eh. léegi nee na nee na gangster la ñu si kaw. Ah. yow kon léegi looba boy nga ci suuf. <laughs> yaa ko wax gën leen leen ci suuf. non wax dégguma olof buy ma yaa ko wax gën leen ci kaw. gis li li ya taxoon ma mënu maa introduce ma boobu si olof <laughs> lii laa bañoon. Uh-huh. su boobaa ma wax fi dara jaase su ma bëggoon a wax ne Gambie laa dégg ne Sénégal. waaw mais <laughs> mais yow moom ñëpp xam nañ benn affaire mooy gën ci kaw. Ah. mais kii dafa ñëw man ba ma tiit quoi ay ragal du jéggi raay jël non non ma gis. xam nga la def ko man la ni wa. man bàyyi waay. xam nga xam nga rabi tàng ne tiital gel yi. waaw ñu foog ne xaat ko la nit mun ngeen koo ragal. waaw mu cabaxal leen boobu. waaw Avant nous uh, ñuy arrêter émission bi fii ku fi ñëw nga nekk gan international ou bien national fii nga nekk underground ou upground Dans benn rubrique bu ndaw bu tudd kill de beat dama leen di jox benn beat après ngeen def lu leen neex C'est bon Ma ina lenga sa gonmi. Da mai shu khala. Bidbi. Nanyo Okay, let's yeah. do it DJ Iba, on est toujours en direct sur la 102.3 Vibe Radio, the number one set if you already know. Donc nous préparons une weekend, let's go for Kill the Beat. Kill okay. the beat, kill the beat. What? What? Direct. Yes. Must my check. Yeah, yeah, okay. yeah. Yo. Hey, I'm not a rapper you can handle. Make a whistle, blow your candle, boy. Dapat if it tight, tight, pedal to the metal, sicko. That's all I stabilize, and that's and do you stabilize, yo. Check my new socket, big tanga, let's a kettle, boy. Hey, chana, nye do hit you pari jana. Bobin level like nigga, you men is savaraka jana, yo. We begin a chuku chukundo, you do your tana, bobin level like nigga, you men is savaraka jana, boy. My mama nyota got nyari bar, yo. Dadat the bosuru, mahana, hame, kangam bagin. Oji boy, get all up for my joge, gonna hoot. Bandit, do for dick boy, walk like ni gaay dañu te ok oh, ragal du jéggi raay ay waay pour ñu woo ci ay bakkan bi lañ la jaay ay waay tey da dig ñu fay adresse bi ginnaaw raay la point com jeex na tàkk ayoo li këf sa brandi naan sa dëkk ñoo la gën a yo yo déedéet déedéet mënuñu ko dee you be hating on the low gang bi dof bi bokka dee all my niggas let me bolos def ko si sa noppa dee we be doing bigger name is a dépassi papa ñoom man ay xibaar ñëwaat wala liggéey du mat ñoom li may def gën a kawe ne leen nañu toog nañ jolle yow yoroo bee ma yónni yàkkal ci man li may def gën kawe wax leen di yo when the niggas are coming and the game I make it stupid defend the thing when you want to kill it niggas defend it jàppate hit si nit ma fokkati wend dugg ma yëkkati lokkati safara fay ma xamati ñëpp di xamati rabu daxati rabu tegoon ni dootu fi amati yokkal ma bit bi ma jóg seen kaw yokkal ma saan bi ma jóg seen kaw sa jóg tegal ma rega te doo indisposé yaa ngi wër ci dëkk bi di dëkk sama amour laa ngi my Yo, open doors, my dude is building a big team, done a legacy boy. Tell the niggas I'm the legacy is getting big one for them and it We young, but I was a feeding mass. Nichabu guy I'm for the sass yani bandi dafa dal ci ñun ko doogi waat mos ñëwal tey ma jàngal la ok ma woonaat la ni game lay def maa ngi vibe te mënu ñoo yam gis nga koy defee dàq booy aram di mais yow ma king man do my thing. ting dama yóbbu boobu making top yo te king yo man I'm a gangster me got a strap ne la réew yi teg xam nga nigga rap yeah Koy def ba soru man ndigga daanu nga xam nga ni maa la mën man ponkal naa Yo da nga def ba jaay xel mu manqué ne ngaaka nga boo defee sama goro gis guys, guys, guys. Mad. Man. Yéen ñaar lan moo leen dal. ñu kiri. les gars derrière les gars derrière. en fait à chaque fois ku fi ñëw ay ñaari artistes laay am. à chaque fois dañuy bàyyi bit bi et tout ku ci nekk def lu leen neex mais youth boof. you were super duper under xawma am. good man you good you good you good. you killed the beat. concept bi du du battle du on essaie de voir na def vous avez même énergie ngénam mën rap mu gaaw mën rap mu yéx mën def ay tout donc ça veut dire que ñaar ça passe mën nan di def ngén try affaire bu nice def ko Sénégal mm. you have to thank nga koy nuyu koy remercier comme Sénégal Sénégal ginnaaw maa ngi kii dañoo xuloo moo tax ma may julli ci yonent bi xam nga maa ngi sant samay ñaari waajur ci laay dat waaw yow dañ lay bàyyi maa ngi sant suma yaay waaw di sant suma maam moom mu ngi gaañu woon yaagut noonu waaw suma nuyoo bi du bëri nag bëgguma raapay ñeme ma <laughs> yeah maa ngi wax gars ne drop naa suma EP bi yaagut noonu EP bi ñëw naa foofu gars yi ba gars yi uh-huh. DTM bi 100 percent but maa ngi come back to the rap shit right hardcore my music e tanga. Let's right. get it. My rapper ina. Straight out there. Nyom hamne sen bopa. Okay. My new man. En force ça. Come in. Ouais, en force, dengue nyo en force. Yeah, en force. En tout cas, en tout cas, yo ne t'arrête pas. Boul arrêter. Mm. Mm-hmm. Continue on this way. Yeah. Na humele eh, one years, two years. Fini ñuy I deep I yeneen guy. yi ci kaw kaw kaw mën nañ la dégg foofu. ça c'est sûr et certain. pour benn rapport bu jugee Gambie ñu def li nga def. that's really really really good. Mm-hmm. Peace. ginnaaw bu ñu sante yàlla waa ginaaw raay sànq tam dégg naa nga naan ragal du jéggi raay bàyyi fi nga fi woy mbëggeel <laughs> man suba sax ginnaaw raay. <laughs> utal passeport. <laughs> dañ leen bàyyi les ale. maa ngi biir def job di job I don't need your help. yow maa ngi remercier sama waa label. Mm-hmm. def job record you know di leen sant di leen gërëm mm-hmm. di job ak ñoom mu nekk job bu nice sama waa staff maa ngi leen di mm-hmm. siyaar di siyaar kuluru gars yi fi teew yëpp you know dagg seen soxla ñëw pour accompagner ma émission vibe di la bëggee yow moom bon mënu ma présenter wu sa kanam wala may wax dara parce que ba may rap sa début du fii la la fekk damay ñëw concert xam nga fa yàgg naa la fekk concert donc tey boo accepté émission bi c'est un plaisir quoi li ma wax vraiment ñëw fekk si koo xam ne xamee xam na say début, uh-huh. donc tey bu osé jël la ci rajo bu toll ni Vibe radio donc ça veut dire que am nga loo indaale quoi donc di wax tout le monde waaw na gars yi dem streamer album bi c'est disponible partout mooy projet EP e bi waxoon naa la ko la tudd am naa ci featuring ak Aro maa ngi koy siyaar di fi di tamit King Sanko mi ma ci defal featuring mu jógee ba Suisse Aro bu waaw def nañ ci feat moom it you know nekk na projet bu nice quoi et bëgg naa gars yi ko mhm. aussi que waaw lu ci waaye mën a booster booster ko mu gën a jàll waa en tout cas daal waa Kolda ñoom kaale nañu ba pare de. amoon naan ba nga woowee mbëggeel Kolda <laughs> ba pare fii nga nekk di ma siiwal naan samay début yu mel ni man paa laa. <laughs> doo paa mais début yi yàggul. yow fii la la fekk. ok en tout cas je te remercie. remercier merci Mayo yow amul discours on se connaît depuis ah. longtemps donc depuis jamonoy boobu ñuy dem Jacques Chirac. univers donc euh, ça fait longtemps. <laughs> commence commencé rap ça fait longtemps et tout. Euh. Euh, c'est pas pour rien aussi que j'ai osé t'inviter ici. donc yo, je te remercie mention spéciale à toi. merci beaucoup frère. keep going keep going keep going nga mos continuer tout merci à toi Djidji Iba merci Colette Red Anta suñu jaaykatu bi merci Max merci Moussa Neko fi donc man dama len di jox rendez-vous lundi incha pour benen édition bu taal rek show bon week-end à tout le monde peace am out Talrec Show. Et c'est exclusivement sur Vibe Radio. Monte le son. Tu écoutes. Vibe Radio. Yeah, yeah, ça me puzzle. Écoute mon nouveau single sur Vibe Radio. Yeah. La radio branchée et connectée. hey, ah que du bonheur. Ne te le fais pas raconter. La musique qui cartonne, c'est sur Vibe Radio tegaguma nigga mu ngi bëgg a tala bir fan mu ngi bëgg a yàgg bi sëgg de gis sare dessin jobe amul limite dina dox tamit dina yàgg la musique qui cartonne c'est sur Vibe Radio souviens-toi Vibe Radio était la première radio à te faire découvrir ce son le nouveau son. C'est sur Vibe Radio. Radio. Il est 20h. Il est 20h sur 102.3 Dakar. J'ai donné tellement d'amour, j'ai donné tellement de temps que je n'ai pu récupérer. Rejoins-moi derrière les quais, j'ai des soucis à noyer. À l'intérieur c'est cassé, mais tu vas tout réparer. Je veux même pas savoir si je suis le premier, mais celui qui t'a laissé ne t'a pas bien regardé. Tu seras envié par les reines, jalousé par les duchesses. Tes pieds fouleront toutes tes terres comme les Didi d'Angleterre. Parle-moi je te sers mes sentiments. Assis aux extrémités, comme l'Orient et l'Occident. À chaque chose que tu demandes, mon cœur ne sait pas dire non. Concentre-toi sur la carte, je m'occupe de l'addition. J'écris ça sur une montagne, à la lumière de la foudre. C'est comme dans les films, je te vois, je traverse la foule. Parle-moi. X X Gangs Nagelas, un saut le véritable, voilà. H maintenant, Jason Natrevis, Jean-Claude Cabon, l'homme aux mille facettes. Renaud Robio, le gardien de la SACEM. Charles Tabou, directeur de cabinet. L'insératrice sereine, ambassadrice, reine des bois des maraudes. so zo boerenvol, i zijn my queen. In mijn baie illegal, baby, not de vloek clean. Dag heb ik met so jij zijn mijn queen. Zo nek on Megan, geen en Supreme. Ze leiden, ja, ik is hell, mijn gel. Ook het toen mijn jullie wou, is aan mijn gel. Dacht is aan mijn zocht def. Yo, ga me samen zocht naar lade, bugge def. Yo, ja, kidnap is aan mijn gol. Ik heb je mijn Li ma yëg ci sama jëmm dafa fort ci so dënn laa koy get ni gën a xóot di xóot bad boy nekk tudd xale dootu wala nax boy non non non dum bad